mu génnaat ci digg bëccëg ak ci tisbaar defaat noonu mu génnati ci tàkkusaan gis ñeneen di tendeefal mu ne leen lu tax ngeen yendoo tendeefal te liggéeyuwu leen ñu tontu ko kenn jëlunu mu ne leen dem leen yéen itam ca tool ba bi nga xamee ni timis jot na boroom tool ba ne jawriñ ja wawal liggéeykat yi te fay leen seen bëccëg tàmbali ci ñi mujj a ñëw ba ci ñi fi jëkk noonu ñi mujj ci tàkkusaan ñëw ku nekk jot posetu denaaryoon gannaaw ga nag ñi mu jëkk a jël ñëw yaakaar ni dinañu jot lu ëpp loolu waaye ñoom itam ñu jot ku nekk benn denaaryoon bi ñu ko jotee nag ñu tàmbalee ñaxtu ca boroom kër ga naan ñi mujj a ñëw benn waxtu rekk lañu liggéey ba noppi nga yemale leen ak nun ñi yenu coono bëccëg bi ak naaj wu metti wi waaye boroom kër ga tontu kenn ci ñoom ne ko sama waay tooñu ma la ndax jubowuñu woon ci benn denariyon kon fabal li nga moom te dem su ma bëggee fay ku mujj a ñëw li ma la fay yow ndax sañu maa def ak sama alal li ma neex wala ndax danga am ki ñaan ci li ma yéwén noonu ñi mujj ñoo jiitu ji ñi jiitu ñooy mujj ginnaaw loolu yeesu di dem yerusalem ànd ak fukki taalibe yi ak ñaar noonu mu wéetoo ak ñoom di leen xamal ci yoon wi lii nu ngi jëm yerusalem te des na jébbal doomu nit ki sëriñ su sa ak xutbakat ya dinañu ko àtte teg ko dee